ee fu mu ci deuxième jour bi nga xam ne moom mooy drapeau du chef de l'État démb la commencé woon ci le 28 bi ñu bëre par équipe ba dem li nga xamante ne bii moom mooy final tey ñu ñëw fas yéene bëre li nga xamante ne bii moom mooy individuel yi ci li nga xamante ne bii mooy catégorie yëpp bëri yëpp nar a mbëkkante ci seen biir dajee ci seen biir jaajëfal leen bu baax suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV wax naa la ko Leewtoo TV fépp jëlal leen ko toppal leen ko bu ñu def rek lu dul dugg ci biir làmb ji jël réaction mbër yi xool mbër yi lan leen andi tey par ak dem lan leen ci lu bees incha allah ci biir géew bi xool mbër yi naka la ñuy bëree wante jëlal leen ambiance nee leen Leewtoo TV làmb kese làmb dong làmb képp fii la ci Leewtoo TV ci kanam tuuti day gën a leer. mode quoi. parce que champion yi fi nekk. waaw maintenant champion champion la. champion la loolu kenn war a teel ko. tey lan lu bees nga andi. man nag dama doon indi démb rek. waaw. waaw. waaw kontaan. merci beaucoup. comme ni naan ànd rek ñu àndal chaque jour bu ñu mayee ñu jël dem bu ñu ñàkkee tamit ñu jël dem sante ko. jaajëf lay wax waa Kaffrine. xanaa dinañ wax ñu ñaanal ñu rek incha allah. sant yàlla bu baax a baax taxawoon nañu bu baax. nee na andi ndomb a a finaalu suba. sant yàlla yàlla di bëri. waaw ah. final ko maa ko final ko maa final ko Kolda final ko Mbour kon yàlla naa ko final waa Kaolack yóbbu waaw te nag la ko doon final ba tey mooy waaw la ko doon final ba léegi yaa ngi koy yëg ba léegi maa ngi koy jom ji fulla ji xatar bi lépp foofu parce que ay ndaw lan parce que dañoo teel dugg suñu biir maam di nekk ak ñoom tëdd bi ak ñoom di jël si surtout ay drapeau kon léegi bu ñëwee ba nekk ak suñu morom dañ leen wan carrément dafa am lu si nekk match démb seen demi final ak Dakar métti ngeen door fekk zéro waa Thiès luy seen secret. waaw sant rek booloo nekk benn def la groupement bu jaar yoon mu toppatoo day dem Sénégal su def ay deux semaines di liggéey ensemble boobu nag yàlla du ko si daan seen i nit boo jëlee dara dañ ci fay dañ fay da yàlla dana koy fay. Ballon d'Or daan na Sadio Mané mooy Mamadou Moustapha Sall ci boppam lañ ci plus de 100 lay bëre ba léegi. drapeau du chef de l'État président waaw waaw waaw waaw nee na ma maam Mor Faye mooy président CRG kaw la waaw waaw ay ca ordinateur mooy bëre noonu ca biir mooy ordinateur ordinateur xëcc na ko fàq na ko rëbb na na ko maa la na ko diggante Kaffrine la na ko Borom Lambe takk na ko léegi avertissement Borom Lambe am na ñaari avertissement moo ci amaat benn boo amaatee benn day jeex ma nga doon demi-final catégorie soixante-six seize kilo Borom Lambe ak xeleb Kaffrine diggante Kaffrine la ak Diourbel demi-finale catégorie soixante-seize kilo demi-finale Kaffrine ak Diourbel Kaffrine ak Diourbel waaw waaw Kaffrine ak Diourbel arbitre bi toog nag moo baaxul ci ñun Kaffrine ak Diourbel eh borom dambe daan na ko borom dambe daan dem na final waaw waaw xalab Diourbel dem na final catégorie 76 kilos Lamba dem na final catégorie 76 ma ngay fecc waaw Seye Ndambe Seye Ndambe ndaanaan la jërëjëf mbokk yi ñu ngi ak Saliou Ciment di promoteur fii ci Kaolack Ndangaan di tëgg ay làmb nag di génn ay xale di génn ay ndaanaan Saliou maa ngi lay ziar si jàmm ba ci sa drapeau sa militaire fii jàngat nga mën a def ci deux jours yi démb bon satisfaction totale satisfaction totale parce que comme gars yi ñëw nañu autorité yëpp ñëw ci nekkoon na si loolu tamit nekk ci say ci bi baax aussi ñu ci sant baax tamit sa nekk promoteur ci dëkk bi fa te bu nañ làmb daaw te bu le 4 ak covid 19 bi ñu ajoon ko ndax covid 19 bi ñu wàcce waat ko drapeau madame la maire madame Mariam Sarr am na ñu tudd waatee ko pour le 20 juin incha allah bu cee àndaat ko ak yëpp bu cee nekk daal pour le 20 juin kan ak kan koy bëri. Sa Thiès bu Kokaas ak Sandiafou bu Niggi Nag combat spécial jël nduur nduur bu Niggi Nag te ko ëmb seen bu baax nga nga boole fi ayub am coow lan mooy si secret. waaw parce que daaw bi bi ñu toogee gis ñu benn promoteur bu dëkk fii fii Kaolack dañoo ne mënuñu seetaan jeune Kaolack yi di toog une saison même sans def dara loolu moo ñu dugal ci loolu rek moom moo ñu ci dugal nag di nga yaa ngi préparé tëgg yeneen journée wala ci journée boobu nga bëgg a yem. bu journée bi jàllee incha allah dañuy ko programme comme comme saison bi ren du tëj bu ñu defee joué. mois d' août wala mois de septembre bu demee du ci du préparé beneen jour. ñu préparé beneen jour journée bi nga déglu fan nga toll ci wàccaay ak nan nga nar a andi lu bees. ñoo ngi wàcc te it naa ne ku ne l' association de deuxième division boo ñëwee ñoo innovation ci lamb li nga xam ne maanaam. comme ni drapeau suñu chef bi ñëwee connaissance bi culture bi ni gars yi indi Kaolack ko loolu nam nañ indi ci drapeau ci suñu journée le 20 bi ci des nag surprise bu ñëw di ko ñu defar ñu wàcc ndax genre demi final dafa am beneen combat boo xam ne daal nañ seen kanam te demi final boobu laa nekk di waajal ci daan ñoom ñaar ci daan combat bu rëy bi ngi diggante Ngor Niakh bu Fatick ak xeleb Kaolack bu diggante Kaolack ak Fatick Kaolack Fatick attention Ngor ay ca ña ca beneen demi-finale catégorie 76 kilos diggante Ngor ak xeleb Kaolack bi Kaolack ak Fatick ñoo am demi ñooy dem demi-finale catégorie 76 kilos ñoom ñaar jàppante nañu ca kaw.

dan atas soal korban melakukan awal korban tanda keleba gorjax daan na dem na final mook léegi waaw waaw leer na nañ waaw demi final catégorie soixante-six kilos drapeau sénégal waaw waaw Gandia Fama mooy bëre fële ca gannaaw benn demi-finale catégorie 66 kilos 86 kilos di mooy waaw waaw Gandia Fama ak xale Thiès bi 86 kilos la ñuy bëri demi-finale ak demi-finale waaw waaw combat calcul la kenn du ko bëgg plateau A Gandia Fama attention xale bi jël na Gandia Gandia génn na ko jël na Gandia Gandia génn na ko ba mu ngay bëre ca kaw seen ñu ngi lay ziar nee na ma merci Sosokh Sosokh champion la attention waaw Gandia Fama di leen fàttali yéen a ngi ànd bégee bu baax a baax suñu mbokku internet yi ñu ngi leen di ñaanal di kontaan ci yéen bari waaw waaw Gandia Fama attention xale ba na Gandia takk na ko Gandia rasu na ba koy kal na Gandia attention waaw waaw na ko takk na Gandia oh da koy tegal seize oh oh daa ci def ba trois at xale ba daan na ko xale ba daan na Gandia Fama waaw waaw waaw waaw sport la xale ba daan na Gandia Fama oh la la la la la waaw waaw xale bu kaw la bi daan na Gandia Fama waaw. dama lay nuyu la ziare bu baax. maa lay fay di la delloo ziare bu baax. Mamadou Moustapha Sall drapeau du chef de l'État waaw drapeau chef de l'État mooy neex parce que ay champion yi champion yi ñëw nañ gars yi ah. compétition ñëw nañ pour compétition am ñu war a am dinañ am ñu war a ñàkk ñàkk xam ne yàlla moo dogal loolu quoi ku fi ñàkk daal na xam ne yàlla moo ko dogal ku fi am tamit na xam ne yàlla moo ko dogal mooy loolu ah. waaw di leen ñaanal rek parce que man région de Thiès dëkk di ñaanal Thiès yàlla na ko yàlla may ndam mu jël ko parce que mérito ko indi naa ay champion indi naa ay ndaanaan xam nga dañu tamit fi ñu foofu la ñuy tiitaroo Thiès lañu dëkk région de Thiès lañu ñaan yàlla région de jël la mais ko ñàkk tamit nga xam ne loolu la yàlla dogal quoi du la waaw ñun Ousmane Sarr ñoo la ñuy xaar rek ci loolu jëluñu ko maa ngi nii ñëw naa wóoluñu wóoluñu moo la jëluñu ko confiture ma sax damaa toog toog ba dégg réseau de caisse def na qualification jël na mbër yi feneen feneen feneen ñoo ko doon aussi yeneen équipe mais équipe yooyu noonu pour ma soxal dem parce que équipe bu ne laay mën a présenté seen résultat loolu fa nga dëkk gox bi beneen gox la waaye da ngaa doon dem mercenaire. waaw bu ma dem mercenaire mercenaire fu may mercenaire aussi laa bu fekkoon ne tey dañoo tëgg drapeau chef de l'État ku ñëw dund loolu leer na ko yow loolu leer na la naa ne dama koy yóbbu kàmb non damaa yaakaar dañoo xool dañ maa jël parce que dañoo dañoo yaakaar Kaolack dañoo jël waa Kaolack tamit yaakaar ni Thiès lañ may jël xam moo am mais loolu rek yàlla moo doon yàlla moo doon ko jóg ngi nekk sa jib laay beneen yoon tamit bu ko ko. mala mala mal entendu Thiès kaay jiital li bi nekk si sans détour waa nga xam leen boo gisee grand combat. sama tasee tey soog ñoo bëgg a tey yàgg nañoo bëre li ñu door champion la boo fay champion am naa ne ku ne mën naa daan ko ku daan mën a wax daal yàlla na ko jëf ku daan tamit di ko encouragé rek parce que lii mooy ñu buur Saalum ñëw Saalum si teg ma jël ko ba dina mooy sàcc du ma la bàyyi wuy ma diggante ma jàmm mooy Doudou Sané ñoom ñaar ñu dajee day mel ni rayante moo xew si diggante Doudou Sané bu baax Doudou Sané ndaanaan ak champion la ñëpp nangu ndaanaan na dama teel a mos ne ndaanaan la loolu rek ah dañuy bëre seetlu moo bëre daan naa daan naa ko cinq fois mu daan na ñaari foofu. lan la nangal sax. waaw génn na ma sport waaw mooy loolu la. sport la daal toujours daal daanaka nga gaayam ndaanaan la. waaw dëgg la ñaar ndax foo nekk dër bi lay nekk. kon laa la si dër loolu dara lamb ko baaxoon rek sport la rek. bilaay walaay ndaanaan lamb ay ndaanaan la ordinateur boo gis ñoom yëpp waaye ay ndaanaan la ay soox soox ba ñexe ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ nekk waaw dañuy daanaan ba faaw ñuy daanaan la parce que ñoom ñëpp ay ndaanaan la voilà Elimane Sadji laa tudd nekk vice président comité de lutte arrondissement bu Ndiédiène mais wax ne rek la région nag kontaan nañu kontaan nañu CNG pourquoi parce que mënuñoo organiser drapeau chef de l'État région de Kaolack ndey baa nekk ci biir nekk dans la région nekk ñépp xam day Pape Ngom partout dans le Sénégal ñu koy moom ak Mor Ngom nekk tambour major dans la région mënuñu leen a jox lamb ndax di ut seen i nit yi bopp jël ay faya ak keneen euh, ku ñuy wax may nag jox leen lamb loolu du dëgg du yoon parce que aussi boo ñëwee si région bi la diva muy des fois du ñëpp xam ko ci lamb moom lañ war a jox lamb ji ak Mor Ngom loolu moom Kaolack yëpp koy méttiwul te amateur yëpp a koy méttiwul parce que ci seen lamb la ku képp koo xam lamb fi ñu toll xam ne mënoo def lamb te génnee génnee ci Ndeye Fatou Ngom ak Mor Ngom surtout dans leur région daal loolu la ñu ñaawlu en tout cas ñu ngi kaw yëpp amateurs yi rafetlu wuñ ko te ànduñ ci décision bi CNG ko jël wala CRG bi mais ànduñ ci waaw xam naa ni mooy moom moo moom góor ba leer la ñëpp xam nañ la tëgg loo xamante ni wala ambiance bi ngeen bëggoon a indil leen effectivement moom moo aussi il représente la région donc nekk nañu doom bi la ñun moom moo taxul ñun ñuy wax parce il soit moom moo moom mais ñoom ñaar ñëpp président dañoo waroon a figuré fii moo ko muy tëgg moom moo li muy tëgg neex na mais dëgg dafay ànd yi nag ne ñun tey jii fii làmb toll ndeyfaat moom kenn mënu ko séparé ci làmb day lamb day la dafa war a wéy si moom am aussi lamb am na dafa war a tëgg ñun loolu la ñu wax bon vraiment ñu ngi leen di ñaan ñu muñ waaye xam ne décision bi aussi neex en tout cas de toute façon ñu ngi leen di wax lii aussi buy amati dañuy confronté wu di bi ak nit ñi si a ñu bëgg amateurs na gën a yëngu kaw la ku ko xam xam ko ci culture xam ko ci lamb kon lamb ni mu doxee waroon na gën a changé nit ñi amul merci beaucoup. yaay ndaanaan waaw waaw diggante Diourbel la ak Kaolack diggante Diourbel la ak Kaolack demi-finale catégorie 100 kilos arbitre soufflé na génn seen ñoom ñaar Radiakhé ak Sélémélé ku daan dem na finale ku daan sa poche dul na lii nag individuel la gañ dugal ci sa poche la maa la ko wax waaw waaw sama gars yi jox leen ma ay kër may xool namb naa kër yi waaye jox nañ avertissement Radiakhé jox nañ avertissement Sélébélé bëre leen waay bu leen ñu fi yàggal waaw waaw Radiakhé Sélébélé

Radiakhé Selebele Radiakhé Selebele waaw waaw moom mooy buntar bi waaw waaw Radiakhé da koy tegal seen wala da ko war na ko ndomb Radiakhé butu na Selebele door na ko ci suuf Radiakhé daan na Selebele Radiakhé daan na Selebele Diourbel am na ñaari final individuel Diourbel am na ñaari final individuel waaw waaw Diourbel saf na ci drapeau saf na la waaw waaw ma nga noona rajaxe daan na Sélébélé da koo war ndomb bu di waaw waaw Diourbel dem par équipe individuel yi am na ci ñaari final 76 kilos ko jël bu rëy da ngay supporter waaw waaw cay làmb ja day waar ja waroo di toog sama wet ordinateur takk na xale ba waaw waaw oh ordinateur daan na ko ordinateur daan na ko ordinateur daan na ko dem na final waaw diggante Général ak diggante ak Fils de Batlene Kaffrine ak Thiès demi-finale plus de ak Thiès bu daan Général Malika ngay am Fils de Batlene attention Fils de Batlene Libidor Fils de ak leen ligi door waaw waaw ñaari ndaanaan lañu fils de Pape Lène Libidor ku daan général Malika ngay am oo oh, Libidor dina la daan moytu fils de Pape Lène Libidor fils de Pape Lène Libidor fils de Pape Lène Libidor oo oh. d'or daan na fils de Batman Libi d'or général Malika ñooy daje final Libi d'or général Malika waaw waaw jeex na tàkk waaw waaw. quatre ans na ma trois ans yi daal gisee noonu par individuel lañ doon bëree mi ngi noonu bëre nañ ba dem li nga xamante ne bii mooy la ñuy bëre final yëpp par équipe yi Diourbel di ak li nga xamante mooy 60 kilos wante Fatick am na ne li nga xam mooy ñetti final am na ki nga xamante ne mooy ordinateur 100 kilos am na général Malika plus de 100 am na Ngor Niakh 76 kilos mi ngi doonu yeneen yi ñoo seetloo li nga xamante ne mooy li ci des Leewtoo TV ngeen àndaloon Mbaye Babacar fii ci Kaolack Ndangaan incha allah suba. Balde jaajëf Mansour Fall